ay tata Soda tata Soda mënoo bàyyi coow tata Soda yow naka yow ngay nekkee ci kër gi di xuloo ak ñing ba mu fi nekk naan la ay may naa la baat. yow man maa ngi toll fii dégg seen coow li. da maa dégg ma coow. dama la dégg nga coow moo tax ma ñëw di wax ak yow. Hmm. te dara neexuma ci. ndaxte yow bu sa xol jógee man mii man la sama xol di jug man lii dara neexuma ci wax dëgg neex yàlla. nekk fii nii yow sa personnalité sa dignité sa classe sa mana, ah yow paham xam la ci lak fayda té kak té ak réglé ñu ñew tay ji bëgg la fé def li ni sama xol da ci metti motax man ma ñew di wax ak yow dara neexuma ci waye ma xam nga ne way waaye di nga ni cey li lolo wara sama coow hmm. d'accord de toute façon sa personnalité sa classe sa dignité dara warul tax nga di ko perdre te gis naa ni ñii dañ laa bëgg a yab bëgg toog ci sa kaw dënn bi di berek bu ko mës a nangu man yow yaay sama référence damay roy ci yow donc man bu ma gisee nit di wax ci yow dara man daf may metti carrément nag bëgguma ci dara lii nii fi xew nii yépp wax dëgg neex yàlla dara neexuma ci nga xoolaat nag bu baax ni ngay doxalee ndax man bëgguma ku la yab. dangaa liir ci sama kanam ne dafa manqué personnalité. nekul ci sa kanam de te kula xol xamne yow mi jek bir nga kat manke wo mata di wo te yit mat nga li nga doon mais nak buguma kula la te dañ lay waja a nak te lolu man maa setan dul setaan Fatou mhm. ma nekkee ci sama nek deg mhm. ak ki nek papam mhm. fo jëm mu ne ko damay hmm kon na bu de rusul mom mi lu ma rusta def duma ko ko rusta def ndax say la ku nek dañuy defante respect respect rek ko lal lool la mo waral ciowli ko deg jotali sama man li am importance deug la nak neexul ci xol yimbili nak ki nday yi ak ki waral li lepp sama wujju bi kessela la na nak ba sonn ñaata wujju nak la fi am ndaxte keroog arastu naa ko ba son mais masak sax dégg xam nga man xaayaan ki dégg hmm kén duma hmm da nga wanan ma ni ci fofu non la djëm ak yow sama wujju bi boko xam nga sa kan na am aw avant wagay di fi ñëw mu tass <laughs> bu mané sama wujju dama yaakaar ki dem la kay ki may wujjantel maanaam ci biir gi awa gay mel na kay moom moo tax may wax parce hmm. que moom mooy ndayi mbindi gi araftu naa nag ba gi ñi di doxaan xaritam ben bakken moo jël photoom envoyé ko ñi nga mu ne ko gone gi nu muy demee mu ko lekkukaaya ko may di ko makoro gis nga koñ ba mu dafa makuro, was lañ ko tuddé won day wa makuro, ba makoro lu warta makoro xam nga man wujjam la momo makoro ak ibulaay xana do ay wax day dugg may ga bu génné xéñ soblé li moko def kon de num jigu ko mhm. makarona na man bu yap la ci xam ma bu bulet mhm. ma bu ginar mala bu taatu neen rek ko nit dañ koy makoro li de la liggéey kon mom bosom du ko jik li dal la def avertir na nak ba munu ma ci dara ba ma jog dem ci awagay xolal ta so de togal hmm. gis nga man buma ñewé ni pour de la wax pour nga xam fi ngay tek sa tank la gis nga wax ci man mi ko lijeenti bam mu toll fi ma koy wat ba xam turu gel bi xam fa mu dekk defal la enquête ba mu mot nak ñëw tegal lako ci table bi bu ko defé sa wax dana am bop dana am gen te ku la jox la deug xanaa neex na wóolu ma ci rek kay te nga seetaan. seetaan a dàq cim daje. déedéet xam nga boo waxee leen ni danga may bàyyi ak li ma moom. Mhm. doo ancien secret doo pëlise. Mhm. yoroo droit bay enquête. Mhm. ci lu leer. borom dëj bi mun naa jooy dëj. waaye dumaa la teg ci taabal bi dumaa la xamal li fi ne xanaa wóoloo too ma tamit. leen da naa ko ah dama jógee dina ma teg ci samay loxo dara. <laughs> bàyyil mu sedd. man dinaa ko lijjanti. lii rek la amul leneen seetaan maag moom. joyeux anniversaire bu mag boobu nga xam ne jaxaaw la dëkk joyeux mais nag casting yi muy woote biir man looloo ma jaaxal xale jigéen ñi moytu leen Bobet c'est un grand ëmbalkat joyeux anniversaire. yow mii yaa jaram moytu yow doomu raam ji. Ah. yow Fatou Kiné lan moo la dal man ngay jéem a jaxase ak sa tante. ah dimbal duule la ko fenal ah naan man maa ko wax ni dafa forox dafa xasaw ah Fatou Kiné Fatou Kiné moytu ma. Fatou Kiné moytuma baxna na yow xam ni parce que xamna ni buma la lalé rek après dama lay gañ dem tëddi fële keur xat té lool lay bañ mais dina xam yow ni may def ak yow doomu ram gi li nga wara lijeenti lijjanti ko lijeenti ha ah, mu nekk ci kon bi di doxaan ak fu ne mu dugg ko. ha eh, eh, ah? basta mani basta man sama jëkkeur melul ni yow sama jëkkër dafa responsable ben jabaram ji doy ko seuk musul wër di doxaan bàyyi jàmm tout tranquille booba da ngaa xamul nu mu demee bu bu ak Fifi la mi koñ bi ñepp diko ciow ñepp diko ciow nga nek fii ci kër gi rek mo Fifi la nu lañ koy def. ah kat bu mag gis nga bo foggé ni yow sa wax yi dina tax ni ba ma fassé ay ay soor ya nga ci erreur sa nday laay ñëk fassé sa nday yow sa nday sa nday dama la wax lepp yow yow say nopp bala ngay judd sa nday lu ne def nako fu ne jaar na fa am lo xamni duma la ko wax bu la ko waxon li nga sa nday papa loolu bu ma ko wax kon de kon. kon bu ma ko wax. <laughs> parce que li ngay wax nii neexu ma. sama yaay dafa toog fi mu war a toog ba nga fekk ko fa. toog fi mu war a warul yàqu yàqu euh, loo ca xam. moom sa yaay bi muy mel ni yow. ah toll ni yow. Euh, euh, yow bu ma wax loo moo wax loo doomu raam di wax loo rek loo xam ne sax waruma ko sax wax. imbécile bi la papa ah, loolu yow yaa wax ne sama yaay dafa nekkoon ci dëkk bi taxawaal wax ko lu raw la doon def. waaw papa man maa ko jëlee jëlee jëlee ci loo xool. doomu raam di <laughs> lu sosal rek nga ma kulo xuloo la d'accord di nga xamni man nga koy digalel bilaahi di nga xamni man nga koy ay wax ko sa ndey ah yo yëndoon nelaw ah guddi gi da ngeen di setan tele xam nga damay dégg seen télé ñuy wax guddi gi damay dégg wetetetetetet bu dul jeex ma yaakaar yene yéenay nak te tele bi la. prestige daal moom lay japp théâtre da may re bay bëgg a dee rek. ndeysaan occupation la. waaw lool la mais coow li moom nag ci dama degul nga yéey ci yab ci. ah ciow la. ñi nga ak Soda. ah yow da nga yëgul xew. ah wa man yow ibrahim man loolu ci man ay waye do sa ah ñi nga bu ñàkkee fayda bay wo domam diko waxé wax ak mom yene fofu mom la ko méré parce que mom dafa bëgg ñak fayda yow war ngaa toog ak sa doom nan ko sama gel bi ni sama gel bi na lool war na ko wax ah du yoon waaye soo da tamit war na def tay touti mais ñing ngi moo tooñ tey cette fois ci mom mo moo tooñ beneen bi ci top moy sa doom ji ngeen jël faralé ko ni ngeen koy bayé du ngeen jug ci mom yéne a mam yu Dakar yéne ngeen ah, bàyyi parce que man yamalé man néna ma man vager la ma jappé voisin. waaw loolu la wax nee na ma dëkkandoo laa la jàppee bokkoo ci kër gi xam nga kon man bokkuma ci. Ah, ah, ay ay baayam nag. ah mën na ni kër gu mu dem rek gunge leen police loolu mën na ne. ah loolu moom doy na waar ah, day ñëw fekk fa coow ne lan lan la ñu ne kii moo tax mu ne nee dem police xam nga loolu mooy taskatu gëri ah ah waaye loolu baaxul léegi nag sama décision laa ciy jël. en tant que frère papaam. Mhm. dinaa taxaw taxawaayu baayam. Mhm. beneen façon la nag xam nga yàgg naa koo taxawaaye sax mais boobu moo tax mu egsi fii mu si ndax lan neex neexal parce que la sikiri la paasu Bambey la sikiri la ndax paasu Bambey la benn wasin nga wasin wasinaatoo boobu ba léegi waxal du dëgg mooy sa taaw mooy sa caan du dëgg ba nga wasinee ba léegi wasinaatoo xam nga kooku dañ koy bay bayal parce que dañuy ragal dóor ko mu am lu ko metti jaaree fa dese dañu indi fi problème. loolu lañuy éviter motax duñ ko laal dañ koy neexal légui nag neexal bobu nak amna fumu yam mu yem. waaw parce que xam nga lu tax mu am fumu yam moy mu ngi commencer dépasser la borne du deug sama soxna yi ci kër gi ay papam lañ ay ay ay yaayam lañ sama soxna yi ci kër gi ay ndayam lañ du deug mom na leen jappé jàppi ndey te bañ na léegi nag décision bi ma ci jël moy bu fi né mbécc ben ben geste bu ko défé à partir de tay jii may wax ak yow ni heure bii. bu ci defaatee beneen geste dinaa ko téye dinaa ko dóor ba mu tëdd ci suuf. Ah. la ma defoon armée dinaa koy këpp lépp ci kawam. ëpp naa def Ibulaay armée du ci kër gi benn fàtti ne xiibon la ñaar jabaru jàmbur la te moom dong la am ci doom waaw dóor Ibulaay damaa defoon da ngay woor ak yeddi yow tamit. yedd yedd yërëma ko gën. que xamna ni yedd du ko dugg parce que boko ko yeddoon bu don yedd yedd lañu dekké mom ba ni magé ni waaw lo yeddati toon benen méthode lañ mënon dem té né nga gis nga li nga wax boko doré xalé la dafa fiy bon benen bi ci top jabaru jàmbur la kon déjà duggal nga ci ay intervalle yo xam ken mënul ex ci mom mo taxit légui nak man na ma bayyi sama njabot du dëgg ah. na may nuyu papa yi bu sawa mané ne la sawa très bien té bañ ma expliquer dara ci sama jabar lolou leer na comme ken du ko mën ñam sur le faut bu defee loolu dinaa ko mos loolu moom mën la ko wax bu duggee ci samay 18 dinaa ko ñam 100 pour cent ñam maa ngi dem ville ñëw merci Binta. lii muy kafe man rek ma koy sentir kii bu dóoree sama doom bi dee ah dimbali ci moom kat nekkul kat ci mi ngi fii ma ñu mu seefe woon waaye ñoom dee nañ xanaa mbaa waagaan bokkul ca seef ña mu seefe woon laajal ma Fatos lim ma wax. pourtant tata soo da xolal wax bu rafet yow laa jëndal moo pourtant mu ngi ci biir wax bu tubaabee sax dama koo gis rek xam ne day ànd ak sa noirceur de benn. dëgg la. bilaay walaay. waaye comme joxoo ma ko joxoo ma ko may bàyyi bi ma tëj ak moom ba pare. lan man xale du ma dëkk ci digg naaju summi ma ba def ma taati neen teg ma ci digg naaju may battar ñu ko du ko def. Soda danga maa fekk may def lu am importance nga woo ma bàyyi lépp ñëw kon bu ma toog fii nga naan ko Fatou si waxal ak aw waxal wax ma li may doyee. wax law ma la de man xale dama sumi ba ma set dañ ma ci digg naaj may patamti nga toog ngelaw di la ëpp damay bañ. taa Soda kaay ma gis la maa la ko ñaan. gisewu ma ne kuy jaay doro fii laay toog gisantewu ma ne lu kuy jaay lu nuy tere lu may gisee. da toog ba ma pare ci yow Awa Gueye nee na ki ñu ngi di doxaan yaa ko ko may ndax ci sa téléphone la ko gisee sa xarit la. yaa ko ko may yow na lu la waxal yow wax. Ah. <laughs> Eva déglu ma waxew ma ko noonu. yow da eh. la ko ñaan xolal dinaa la lu affaire bi. yow yow yaa ma koy may. affaire la naa la expliquer. pour ma déglu la. non foog nga déglu pour nga comprendre xajatul fii. wuy leen ma yow lu mu la waxal yow wax ah. yaa wax ak yaa def leeruma man dama sekut ak mindeef mu yalla bind yaani ma ngi man la lu way di ak man nga assumer say responsabilité ndax dama koy waxat bi ci dess moy yow da nga am fit lima gëna ragal ci ab jéeg moy fit yow daal yaay jéegub dara bëgg juma tawi sa wéni njëkka tawi sa wéni goro ba weene ya doone aas ay bala maa ab jéeg tawi ab tawi xam nga yow kañ laa la abandonné kañ laa xotti say kayit ëf ko ba nga jàkkaarloog sa njëkke ne ko ba ma njëkki lu ma dama koy ñuus kooku jéeg buy ngërëm dina ko def kii li muy wax dama bëgg mu leer ma ngeen teg dara ci samay loxo loolu laa bëgg so sama degré de banditisme foo ko fu ne weesu waye jàpp leen moo fi wax wala moo fen doo ko mës a may mo tuti ma ñëw. bandi la yow na Fatouche man dama pare say 18 ndax yow li ngay fekke bari na li ngay deg bari na li nga mën bari na Fatouche fen rek ngay def ak noppalik waye comme day yàqante tay fi dara du fa rafet. Eva deglu bul ma travé da ngay deglu comprendre bul ma la travé dama lay bët. yow du ma sa bët dama la yéey ba nga mokk kafoon foon dama lay warax ma buusu la kon xas na ba ñaaw na ñaaw gis nga kii maa moom ñoo toog mu jël photo gel bi envoyé ko tonton ñi ngi eh. <laughs> tonton ñi ko ni ko Fatou xale bi ni muy demee mu ne ko sama copine ay kañ mu ne ko sama copine la yow laa ko yéene eh. te loo si xamul mooy dee ko jox journée dix mille eh, loo wax mu ne waaw dem ci gel ba dem ca gel ba ni ko pa envoyé ak photo tonton ñing ni ko pa bi la lay may awa bul ko jema bëgg bul ko jema nak def ko lekku kay loko laaj mu jox la te bu lool yépp paré nak ma jox sama lekku bandi wa eva fatouche noppil ngal tubaab trop bon trop con moma dal waye tay ji day dak man do tok sama wet fenta fenu toy xep ma am sama jaanu bi tok ci xam lepp def pat ngay da ngay tok ci soda pour yakuma sama lamni bi mako mom ba ma waxalee benn mën naa la waxal fukk ba toog. Iba demeewul fa noonu de tey nga wax li am. ba waral li ma wax nii. Eh, yow amoo looy wax ngay tàllali loxo sa loxo yi mel ni ay wax ay xale bi yàlla na la yàlla yërëm soppi la. jar na koo ñaanal de kii. xale bi yàlla na la yàlla soppi. te li ma jaax mooy du fen fen yu ko yu ndaw. fen yu doy ni moom rek lay fenal yu doy fen. yow toogal ma yow la looy muutale. sa paxe bakkan ne ay rigol lo loo xewle wayu kañ ngay bàyyi fen ak sayu xàll eh bayyi ma de say nopp ni lempo kañ lay comprendre gis nga waxtan eh eh wayu ki duma bayyi yow wàcc ma waxtan gis nga jeeg bu baax da nga wara a mat fu nit ñi la seen sa toog ko jonkan yi bo ñew ñu ne nopp leen ma ngay jox ala ab jeeg du am jot da nga am jot gis nga jeeg bu ñi mat ker te ñimé bléwal gatcho gu mu rombu dina ci am lu toll dakaro ndakaaroo kees ñimé bu na ñàkk ñimé wu na jakk gu mu féké fajj ko te ñibbi yona na nga am jot bi ci dess na moy ibu lay lay wo ak sama jëkkeur binta mi aw kër gi taaj leen nga bayyi ma tout tranquillement ndax abdoul kat dang koy fete ba mu set tayit it ku dugg ci samay 18 ding mako ko deng tok len na di tek sa yu xam naa ñepp jug ma mbala fi. min nga ko def yow la nga dimbali ma yow bu ko fi ay fen gaay nga fi ne ndax lu ma la fenal lu la rek fenal nga ma lu ni mel. way ma ne kenn du ma ñak na jom man tata soo demee xanaa daf may naan de war naa tëj sama gémmiñ gi lii moom neexatul. ay yalla bi gàcce. tol kenn musu bis Ya kamu ko ya. ah, sama gam-gam tuuti waaye gis nga ko Ibla jaaxal ma. kii du la grande dame gis nga. du ci loo nekk kii nag amoon kamu? ko. maa ngi kamu? naka mu. ça va. ça va bien yaa ngi ci jàmm. nii naka affaire yi. ça va jërëjëf. yaa mën a bàyyee nii dañuy baña tok toog. waaw mag yi wayam dañuy kuti kuti rek. yalla ñu na moy lool liggey bi. waaw ba paré ñu yalla bolé da ngay reebatas. ah ok dama jommi yalla di dañu natt genre jëkkër yi dina jël ko rek teg ko suñuy loxo nang ko rek. tës tës tës tës tës rek. Ah, tey de waxu Massar mo fi andi woon. Ah. parce que massa mënu ma comprendre. suba ak ngoon guddeeg bëccëg maa ngi ci nabbi di liggey ndax ñun. mais masaar jugul ci di ma sàcc. si waaw Massar day sàcc sama alal di ko doxaani je est lu rafet na. Hmm? dëgg la gaa ba mu daan liggéey saleeram am mosu koo lekk bàyyi ma lu mu ndaw ndaw moo ko doon bokk ak mat mhm. moo tax may sàmm kóllëre mais xamul loolu dangay baax ba ñu jaawale la ak dof. fekk du loolu kóllëre moo ma téye ci Massar waaw mais Massar mënu maa comprendre. ni may sonnee suba ak ngoon mu jël sama alal di ko doxaanee lu rafetul loolu rafetul tey rafetul suba masaar yére yi muy sol xamul ñaata lay jar kaw ba suuf caleçon dàll yére lépp may jënd amul lu muy teg samay loxo lu dul sàcc di doxaan ji masaar lan la amul ci kër gi lan la amul ci kër gi wallaay li nga wax seede laa la ko nee naa ko jàkk ni ko téyel sa jabar jafe na léegi jigéen di daani dooleem di ko def ci yow Massar kenn yebb ko ku ko xool dafa ni ministre la wala député qualité nga koy solal waaye leen rek laa la bëgg a wax may ma rek maay tey dama lay waat nga ñëw jiital ko indi affaire la duma bàyyi de ndax woon na ma ne xaalis bii buu la ko lebal muy sa doon ci dama sa goro da la lebal xaalis bi man nag du ma bàyyi du ma mës a yomb torop. damaa defe woon xamoo ne moom ko lebal moo man la affaire dama leen di jiital ngeen ñoom mais comme xam nga ko. léegi nag pour mu clair. ñu dama di convoqué bul wax dara. dina leer bëgg mu leer. golo du bay du ci ko nangu de. ah yow yaa ngi bëgg metti nag. torop sax. ah koo ne du la topp nag fa ngeen jëm daa trop c'est trop. du mun a nekk day yomb torop golo di bay ba bu du dunde man duma ko def te ba pare man li ma njëkk a jaaxal ci ñoom mooy booy finance ci ñoom keroog lañu gën a mën a doxaat kon xam nga loolu kon xam nga loolu ñoom lan moo leen daal moom ma jaaxal yow li ngay yóbbu fa ngay doxaani jee jigéen la koy jox jigéen jan moo la ko jox sa jabar mooy dem daani dooleem yow nga ni xët xëtala ci kër gi toog xaar ko ba mu ñëw mu jox la nga lekk nga sangu ba set la ngay sañsee sa jabar ko jënd boo paree seeti beneen jigéen. fu ñu ko teg nii lañuy def jigéen ñëpp a goiat jigéen ñëpp a goiat ñëpp Massar ku jaaxle ko Massar ku jaaxle ne ko kar yaakaar ne moo yor lépp te fekk coow li coow li man la mu téye alalu jàmbu mel ni bu soo baali fu ne mu baatare fa waaye bu ma jógee ci moom dina xam ne lépp dëgg lii de moom bul bàyyi mu sedd na leer nañ xoolal bu ci bañ dara dara bañoo parce que ñii dañuy defar muñ boo leen fi bàyyi doom am leneen.